Balla moo daan combien la wax si victoire bi. ah kontaan. kontaan. kii dafa bul dara ci lamb. waaw. ak sëñ Fallou Mbacke. dëgg la. bu ko defee ci lamb na. dañ laa wallaay taala. dëgg la président Lat Diop. moom itam nag bi ñu ngi koy sant di ko gërëm. dëgg la président Lat Diop. parce que maam Cheikh Fall gër sant nañ ko gërëm nañ ko. dëgg la président bi taaroo la. waaw amul benn autorité bu ñu jàppale. dëgg la bu ñu président Lat Diop la ñu jàppale. voilà jërëjëf sant ma gars yóbbu ñu. walla ngi noonu di dem walla ngi noonu di dem. doy na fii trop. yàlla ngay jë. Babacar. ah Iba. jël bi loo si wax. waaw jël bi day mayu ko jàmm. waaw. boo xoolee. waaw bi ñu xeexee moo ko dominé ci xeex bi. waaw bi ñu waree bëree moo ko dominé ci bëre bi. wallaahi. kon fi nga bal la. bëre kan la ne yàgg naa leen ko daa mën a bëre. ah man damaa bett de. tey it banque la ku mën a xeex la. ndax daa lakkal góor ak ab xeex. te ku ne ko dóor arigos bu dal. waaw. ça veut dire que Fils de Balla mu saa yu ne mu ngi wane ay qualité am ndax ñi mu daan tegle leen général Malika moo finaalu fii dem 6 millions mook Serigne Ndiaye day gagné oto di gagné ay góor a soog mii day bëri li simple di dem ay final la ki demi final quart de final kon tey bu demee nii Fils de Balla na ko waa lamb bàyyi xel Balla Gaye am na relève de fu mu jëm Fils de Balla waaw gaa yaa ngi ci kaw Franc jël na Forza moom na wëri keneen waaw waaw moo combat la ba tey parcelle géej waay la rek. day gën a metti rek. day a metti affaire bi nañ ko gën a yëngal mu gën a jax rek. dëgg la du mën a ñàkk. du mën a ñàkk nañu laale. nañu laale baaxu góor la. maa ma ñëwee. daa fekk nga liggéey ma ñëw. xam ne aw ma ci tiitaange aw ma ci dara naa ni ñoom. léeg-léeg muy force mën ay jéem te man force mën jéem ci entraînement yomb kon bon frustration yoon bii mu teg nii ñun ñoo ci def suñu moto ku bañ a tegee. kam am lu géej waaye def dafa rom beneen Balla Gaye ci am yeneen yeneen yeneen moom da cee bokk ak ay moromam. kon donc ñun ñu ngi sas ko entraînement gérer ko ba yàlla dafa ko jàmm fu ñu dégg Balla Gaye fu ñu dégg Gouye Gui fu ñu dégg Lalla Diagne fu ñu dégg Sa Thiès fu ko. incha allah bu neexee yàlla yaakaar jooju Balla jàpp na ci loxo turandoom Balla na ci loxo turandoom mais kii tey façon bëri du mu bëri dafa xaw a am lu ma fàttali ci sa bëri tey waaw lii xam nga nee naa la damay ñëw daan ba pare on a obligé damay ñëw daan ñu ne planté ah ba ànd ak man contact. waaw man forti man jël entraînement yomb. ah léeg-léeg da koy foog. moom mi li muy def nii. waaw ni daan ko man bu ma ko defee day sol bu ma ko def. ma xam ne bu ko defee keneen day réussir. mais dama ñëw sa kër nga ne ma waa parcelle man ak ñoom maa man seen patron samay poulain man seen i poulain. alxuraan du waa parcelle duñ la ma sa yàq. non non pourquoi parcelle parcelle am naa fa ay supporter maanaam mbëri laa bëgg a wax boog mbëri waaw parcelle am naa fa ay supporter am ñoom dañ leen bégee waaw bu ma daanee dañuy supporter waaw mais maanaam suñuy morom ci làmb waaw mbëri mbëri waaw man maa mun seen patron te maa koy waxat maa mun seen patron sama problème moo mun seen patron loolu la bëgg a dégg Omar Sakho Omar félicitations ci victoire bi. mais mais gars yi ngi wax Garga de Garga de fils de sa diggante ak sëñ Mbacke Diop. Balla. na ko moom du sama Balla ne lu mu mës a def. bisu tey bii ci gën a riche. jiite géejaway. waaw mbëri di bëri mu di leen dooleel muy toog këram. très bien ci lamb ji la amee teraanga. Ah, ah. lu mën a xew na ñëw nu ànd ak yàlla. Ah, lu ñu yàlla jox ñu jël. dëgg la gàcce mu dugg ci yooyu moo mën seen patron Modou Lo bi bàyyam deewee Balla Gaye dafa dem bi bàyyu Balla Gaye deewee Modou Lô dafa ñëw ay frère lañu ay détails yu xastante duñ ko fi def Balla Gaye mooy roi des arènes Modou Lô roi des arènes la nañu continuer carte gi rek ba kanam kanam lépp dana leer mais xaste bi ah. loolu nag jeex ci sit internet yi bàyyi bàyyi Omar looy wax mais jeex na wax nañ ba pare. léegi ñu toog ci plateau bi def na son bizarre. combat bi de nii rek la mënoon mais confiance bi nga amoon ba ne da ngay daal ñëw toog plateau ba jaaxal na ma trop. est-ce que loolu du gàllaaj. waaw Saalum yàgg na ak jàll. du gàllaaj wax naa la sama point dafa liggéey wax naa la ko. waaw liggéey nga ko tegoon. ah ci liggéey. ak ci côté kuy fort ci man jël kay xam nga ne mën nga daan ko. may may ko dara de. waaw Balla Gaye numéro 2 may ko dara fils de Balla. ba entraînement la ba mu xoof.

Kulandia TV. Kulandia TV moo xew ci jamono. te Kulandia TV sa làkk leew lan wax ak Beuz. ah suñu xarit la vraiment suñu nit la. Euh, li mu bëgg rek suñu borom yàlla na ko defal gis bu rafet bi lépp gis nañu ko macha allah Beuz moom. spécial boobu la mooy loolu. ku ne baa ngi nii nañ dem. waaw yow